jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di leen siyaaraat bu baax a baax a baax ci weer wi ñu nekk weer wu sell weer wu màgg wi di ci baalu àq ñëpp di ci baalu àq ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo am njëggal yàlla nañu suñu borom boole jéggal dañu ñu toog koo xamante ne daa bokk ci làmb vraiment nekk nit koo xamante ne kenn du ko présenté muy Keba Kanté ñu fas yéene waxtaan ak moom lu bare bare bare ci wàllu làmb rawatina ci weer wi ñu ko fekk koor gi nan la koy dundee ak xarit yi ak mbokk yi ak dëkkandoo yeeg am di jàmm dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di so ko defee ñu waxtaan bi Keba maa ngi leen nuyu baax di la ziar. Bajali Bajali maa ngi lay fay maa ngi lay ziar di ziar ñi seetaan ñëpp di baalu ak sénégalais yëpp di baalu ak ñëpp di baalu ak dëkkandoo yi. di baalo ak am di jàmm yi ak ñi nga xamante ni tamitam yàlla def na neexoo ñoom ñoom mm-hmm. si àdduna la bokk mm-hmm. di baal ñëpp ak di ñaan yàlla ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri mm-hmm. di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàmm ci làmb ji aussi. koor gi nan nga koy dundee. ah comme ni ma koy comme ni ko ñëpp di dundee rek woor woor jaamu yàlla xam nga en général koor gi nag damay jël congé si laay mën a profité toog ak famille bi. jaamu yàlla def li yàlla sant si koor gi daal mm-hmm. waaw. say xarit sa diggante ak ñoom parce que koor gi am na ñoo xamante ne fekk naa leen fii ci sa kër ba sa xarit yi nga xamante ne sax yéen a bokkoon classe daan jàngandoo fekk naa leen fi tey. waaw loolu moom euh, chaque jour la muy koor ak ñàkk koor euh, di profiter di leen nuyu ñoom ñëpp di leen baalu àq parce que amee naa leen àq ndax si lu ma nekk ñu ñu ñëw si tey jii euh, ku mel ni Ismaïla xam nga. ak ñi nekk ci kër gi yëpp nga xamante ni matin di soir tey ñooy ànd di liggéeyandoo ñoom Fall xam nga ñoom euh, ñoom Bakary yi ñoom ñëpp daal maa ngi leen di maa leen di maa ngi leen di masaw di leen euh, jéggalu si coono gi ñuy gi ñuy ci man waaw. Kéba gisee làmb actuellement ñu bari nee nañ làmb dafa wàcc ñi nee nañ dafa yéeg ñi nee nañ mu ngi ci diggante bi mu ngi ci diggante gëmm ak fay nan ko gisee. waaw balaa may aborder sujet làmb damay dugg si la nga xam ne waroon tàmbalee muy suma maam suma wayjuru papa bi génn àdduna noppaliku di ñaan yàlla suufu fatik sedd si kawam di ko seedeel nii ku fonkoon njaboot la te ku ma fonkoon la man mii ndax moo ma yar tey jii amaana ni suma gënee féete sax si séeréer si moom moo tax parce que moom séeréer pire la dëkk Fatick yar ma yaru séeréer aussi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw di ko jaale waa Fatick di ko jaale waa Louga surtout xamante ni fa la sëye di ko jaale sama way jur ak di ko jaale suñu famille bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu aussi balaa dara waa Yoof bi ma fekk di nuyu waa Ngor ak wakam ak Ndakaaru fukki penc ak ñaar yëpp di nuyu waa Louga di nuyu waa fatik di nuyu tey jii daam mi nga xamante ni moo ngi nii toog ak waa Kojam waa Travaux di nuyu Mamoun ak euh, way juróom di sama wasila sëñ Abdou Bakhir dem di nuyu nuyuwaat waa Sénégal yëpp di nuyu ñoom Patrice ñoom Laay ñoom euh, Ado ñoom Ngor ak waa Fatick yëpp waaw foofu laay tàmbalee après nag ñu soog ñu mën a soog a dugg ci waxtaanu làmb ci. solo mais làmb ci lamb mooy question bi rek laay indiwaat nan nga gisee làmb demb ak làmb tey actuellement ñu ngi naan làmb daan na ñi neen dafa fay ñi neen mu ci diggante gëmm ak xool. waa xam nga débat bu amoon daaw. ak daawaati géej. moom la ñuy continuer. làmb jógeegul si li fi mu newoon parce que soo seetloo sama interview yi ma doon def daawaati géej dama doon wax ni làmb su nit ñoo ngi naan moo ngi sukuraat donc li ci des nag mooy xool ba xam dañuy fexe mu jug wala dañ koy bàyyi mu dee mais tey soo xoolee làmb fi mu féete ci yàqu yàqu na sax mais ci gën a yàqu la la gën a jege parce que tey soo xoolee ni làmb di doxee nekkatul facteur de développement facteur de divertissement la dañuy jël nit ñi di leen divertir si li nga xamante ni bien vrai que ni bon euh, sport en général am na la nga xamante ni tey benn volet ba nga xamante ni divertissement la mais dafa war a nekk développement surtout si ñiy bëre mën a développer si ñiy tëgg làmb mën si développer si ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy ñëw di seetaan si làmb ji ñu mën si am éducation de base ndax tey soo xoolee discipline la ñuy wax ban discipline ngay def kon ñi ñëw di seetaan si dañ see war a jëlee discipline mais soo xoolee côté yooyu yëpp mooy commencé suuxat ñi waroon ànd ñooy xuloo ñi waroon a xuloo ñoo juboo kon làmb am na la nga xamante ni moo ngi ci biir te muy feebar ba nga xam ne ni ñi fajaguñ ko. bi ngay jël bi ngay yóotu président CNG bi pour ñu jox la ko moment boobu gis nañ ni ñu bari ci làmb moyoon nañ la bopp waaye bi bi loolu amul dañu mel ni dañu gis Kéba dafa retire loxoom ci làmb lan la. non retiré wu ma sama loxo si làmb maa ngi ñëw seetaan si lamb maa ngi suivre làmb maa ngi aussi def li ma war a def ci làmb ñama ci seqaloon kóllëre maa ngi continuer di entretenir ay relation ak ñoom di demalante di dikkalante mais seulement askanu làmb bi ñu dajaloo ki leen yilif dafa am ku mu tànn te dénkaane ka nga wóolu daa dénk ku mu wóolu mën na làmb aussi am lu ñu séntu ci moom jaaduwul may génn di wax si la nga xamante ni day soog a toog day soog a falu. li ñu mën mooy di ko ñaanal yàlla yàlla <laughs> yen bi oyof ci kawam. bien vrai que yen bi li ci des bëreetul. ndax normalement mandaam octobre euh, lay jeex. mais su demee ba motal nag li ñu jàngat ci nguuram ci ñaari at yi mu def dinañ ko wax. fi mu baaxee dinañ ci wax. fi mu échoué aussi moom ak équipe am dinañ ko wax. Ah, gis na fu mu baaxee am na fu mu bon xam Bira joxoñ ko baaraam tuuma du yomb ndax la fi newoon biñ koy xeex man boog bi ma koy xeex ñi yilif làmb dañoo jël ne non dañuy dénkaat keneen mais que ñu dénk ak ka fa newoon benn la ndax tey ci keppaaram la nekke woon ci làmb te man bi may kaas dama ne woon nañ dindi li fi ne yëpp ndax tey soo xoolee osatiru làmb ossature CNG changé wul ka ko jiite rek moo changé ñañ ci toftal aussi ñoo fa nekkoon démb ak barki démb te loolu du changement ñoom dañoo comme équipe la rek am ñu génn am ñu dugg remplaçant la te ñun changement suñ koy wax mooy dindi la nga xamante ni moo nekk foofu indi leneen lu bees la nga xam ne su ñëwee fi làmm tooglu dina ko fa mën a jëlee yóbbu ko feneen mais ñi fi nekk dañoo maintenir te maintien bi ñu def soo xoolee si wàcc la gën a féete ko hmm, wàcc gis ko yéeg. ah mais li fi liñ doon kaas moo fi nekk tey ba tey lan lañ doon kaas ñoo ngi dagg mbër yi. Hmm, mbër yi mënuñu ñàkk bañ a dagg ndax Kéba mbër yi chaque fois li leen règlement bi di tere moom la ñuy def. waaw xam nga loolu dafa am fu mu war a commencer gis nga contrat hmm. dafa am ñu ko moom. contrat lu ñuy saytu jàngat ko la. Hmm. réglement aussi dafa am ñu ko moom. mais xam nga tey aussi mbër yi manager yi joué wuñu seen rôle ci ñoom. Hmm. ndax yow da ngay yor ñaari mbër yu bëre benn bës nga bëgg a yor kii bëgg a yor kee. Hmm. xamoo fu mbër mi di entraîner. yow mbër mi li nga seq ak moom mooy diw bëgg na sa combat. signé jël say di pour cent dem toog. yaa ngi dégg te aussi. il faut ngeen xaw a comprendre aussi ne tey su dee retard. mais mbër bi moomul embouteillage bi mën na départ këram heure bi war mais soo amee gàllankoor ci yoon bi nag. gàllankoor noo tuddee gàllankoor. embouteillage mën na am. embouteillage ñu jox la 16h45 nga bàyyi ba 18h nga dugg. loolu foo jógee xanaa Tamba. man des fois damay jógee fii fii ak sama bureau normalement dama koy daw 20 minutes mais des fois ma daw ko une heure de temps. parce que du ma du ma xam exactement tey embouteillage nit ki du ko créer. yow xam nga làmb xam nga ne ni su mbër day ñëw rek jàll du taxaw fenn. non non cortège yu mbër du ñëw rek jàll parce que amul motard bu ko jiite. ak booy nii ful ah, loo loolu xam nga fan laam si buntu koñam ba mu génn mais tali bi mbër yi moomuñu ko de tali hmm. su doon tey promoteur bi day fexe ba su mbër mi di départ auto police jiitu ko. Hmm. convoyé ko ba yóbbu ko ci biir làmb ji mën nañ imposé ni retard bi temps yaa ngi dégg mën nañ ko dinañ la dagg mais cest à que aussi. loolu dama jàpp ne amut amut euh, amut lu muy yokk wala muy wàññi ci làmb ay heure bii ngay ñëw ak ay heure bii mbër bu njëkk dañ ko daan xaar ñun dañ daan toog ba dix huit heures ñëw ñuy yërnu ci tribune yi xool ban buntu lay jaar dañ daan toog ba dix huit heures yenn champion yi ñëw suñu ñëwee ñoom seen oto fi muy taxaw fan nañ leen di tëggale ñu dem bàkku mais mbër bi ñëw ci biir làmb ji dafa taxawaalu di wër fu ne mu dem fa taxaw fa mais loolu aussi wax dëgg neex yàlla suñ si daggee nit nañ waxante dëgg dañ ko bëgg a dagg rek enceinte bi tamit nga gis mbër moo xam ni préparation mystique bi dafa yàgg. Kéba da ngay gis mbër moo quarante cinq minutes nga ne ci mystique rek quarante cinq minutes. léegi léegi ñoom bi ñu demee ba autorisé mbër di indi gàllaaj kay buñ ko wutal app mu ngi koy defee ñoom ñoo autorisé làmb gàllaaj xam nga football tey moso gis match boo war a commencé joueurs yi ku ci nekk di yor ay béjjën di dem ci camp adversaire am di di ko joxoñ. CNG bi autorisé wul kenn ngay indi gàllaaj da bu la neexee jokkeel buy bëre bu indi dara. waaw mais làmb noonu la tàmbalee ba fii ñu àgg loolu mënu ñoom mënuñu koo dindi suñ ko bëggee dem dindi ci làmb mbër yi dem defi MMA kon. Hmm. nañ waxtaan wax dëgg aussi doo dem jot sa avance ñu fay la ay nga gëm ne mottalikaay bi may am mooy gàllaaj ba pare ngay bëgg ñëw di ko profité mbër yi duñu may sëriñ lay parce que sëriñ boo dem mu ne la dangay daal waaw. sa diggante yéen ñaar ne xam na ne nu mu mel ci làmb Euh, muy bëree ñaari sorteem yëpp gis nga ni mu ci mujj combat bu mujj mu am xale boo xamante ne dafa nekkoon ci lancé bu baax muy Ada Fass mu ngi ci lancé boo xamante ne macha allah combat bi lan nga gis ni moom la erreur bi jokkeel def ba ñàkk làmb ci war a daanu rek war a rek erreur bi. loolu yóbbu na trop. erreur bi Tafatine defoon bi muy bëreeg Ama Balde la jokkeel def daanu erreur bi Balla Diouf defoon bi muy bëreeg la jokkeel def daanu. erreur bi tey jii Tapha Tine defoon contre Lac de Guiers yaa ngi dégg Issa Pouye def ko tamit contre Lac de Guiers moom la Jokal def daanu. loolu kese nga ci mën a wax. Ah, laa ci mën soo waree. bi mu def parce que sûrement euh, mystique bi est-ce que préparation mystique bi baax na est-ce que bi doy na est-ce que Jokal récupéré na yooyu yëpp. non entraîné na ñaanlu na indi nañ ko mais Arafas daf ko war a daan. Ada su mënul woon daan Jokal du ko jël loolu yàqalul dara jokel yàqalul yàqalul dara keneen yàqul sax palmarèsam làmb tollootul foofu Ada Fass keroog dafa ñëw ëpp stratégie Jokal nax ko daan ko li jokel waroon na bëre moom la bëre moom daan ko mais Ada Fass daan na fi ñeneen ak ñeneen kon su daanoo Jokal du question erreur question de calcul la ñoom ñaar wéet nañ ci géew gi woo na Jokal si signature bi si xeex Jokal wuyu si na ko nax na ko daan na ko c'est tout hmm. ah mais ah, erreur amu ci. mais ñu bari ni mu nekkee ndaanaan ci bëre ni mu mënee bëre macha allah fi ko làmb doon sóoraale wala fi ñu ko doon xaaree Jokal dafa mel ne dafa wàcc ci yoon boobu lan la. mbër day toll jamono Eumeu Sène a ngi nii ñaata defet la teg lekk ñaar. Hmm. ñëwaat na def exploit keroog. loolu ak sport ñoo ànd. Hmm. George Foreman dem na ba quarante cinq ans quarante cinq ans laa la wax récupérer titre champion du monde loolu ak la ak ak ak sport ñoo ànd y a des hauts et des na ci période sombre ba nga xamante ni ñun ñoo ngi fexe nañ ko ci génnee yaa ngi parce que tey lu ñu mënti wax Boy Seye ñaata defet la fi tegle xëyaat suba teel ñëwaat l'essentiel mooy tant que moo ngi gëm ne moo ngi ci biir làmb ji ba tey tant que aussi moo ngi ñëw ci làmb su ñëwee def li ko war parce que mënoon na ñëw di daw di génn saako yi waaw wala déet mënoon na ñëw di war wër loo mais dafa ñëw bëre si biir bëre bi la daanu taxawul di xoole rek ñu daan ko ñëwul ci biir làmb ji aussi arbitre sifflé muy génn saako yeeg di dem ak ñëw ñu koy jox avertissement te su ko neexoon mu def ko mais dafa ñëw indi li mu yaakaar ne mën na daan Ada Fass daanu si. kon dañ koy encourager di féliciter Ada Fass di wax ne làmb nañ ko bàyyi xel comme ni ma ko waxee woon bien avant sax muy bëre ak Jokal làmb nañ ko bàyyi xel champion wane na ni tey si yaakaaru faas la bokk wane na ni tey war na mën a àgg fu ne ci làmb kon mu daan Jokal jaadu na ni Jokal doon daane ay moromam mu daan Jokal jaadu na parce que làmb la dañoo ñëw pour làmb ñoom ñaar yaa ngi dégg. Ada Fass nag dafa ñëw dafa ñëw bëri bi mu bëree see daan Jokal Jokal dafa ñëw xeex si ada bëri si ndax ko daan ko. mais combat ñu bari gisuñu a gisuñu Kéba ci ci làmb ja lan la da ngaa ñëw làqatu ci ruq wala da ngaa ñëw. non damaa tollootul fu may parparloo xam nga parparloo dafa am far dafa am man damaa far mais du ma parparloo. loo tuddee parparloo. parparloo mooy ñëw di dugg ci yenn yi comme ñëw di fexe nu may fexe ba aada daanu ci biir làmb ji wala di koy lalal ay dëgg saraxal non dépassé naa lool ci làmb ndax ñoo ñëpp sumay njaboot nañu. li ma war mooy am naa droit far ni président Macky Sall amee droit far si xolam ni président Bira Sène amee droit far si xolam ni Matar Ba mi ministre des sports am na mbër am droit fare si xolam ma noonu la am droit far mais waratuma nag wax dëgg neex yàlla def yenn yi ci làmb parce que tey Ada Fass démb rek gis naa ko su ñaawoon maa ngi moom duñ taxaw di waxtaan yaa ngi dégg te am na yeneen adversaire yu Jokal ya nga xamante ni bëri nañ ba pare seq nañu jàmm tollootuma fi si làmb fa nga xamante dama ci noonoo ak mbër ndax mbër ñoom ñëpp su ma leen mënul boole jàppale leen yaa ngi dégg naa yam si ki ma yàlla dénk ak ñi ma yàlla dénk yaa ngi dégg mais bañ see def lu ñaaw la nga xamante ne ëllëg si biir nettali ba day ñaaw waaw. am na solo ci nettali bu ñaaw boobu nga wax ci laa lay indilee benn laaj boo xamante ne vraiment jaaxal na ñu bari ci làmb ndax gis nañ ko mel ne suñu papa Bekaay ni mu mel ci làmb suñu papa Gaston ni ñu mel ci lamb boo diggee ñuy en tant que kilifa ñuy ñuy weccante kàddu yoo xamante ne séentuwuñ ko woon ci ñoom boo ko gisee ban taxawaay nga ci am. waaw xam nga déjà ñoom li leen boole. question de vision la ku si nekk am na nooy gisee. parce que père Bekaay dafa wax ci teranga ndax. dafa jàpp ne làmb la amoon démb moo war a continuer mooy tëgg sa làmb dem fay télé mu wane ko suñu paree site yëpp jël ko reprendre ko ñëpp gis ci seen bopp xam nga loolu teraanga la nit ki nag moom moom terangam su ko neexee def su ko neexee du def Gaston fi mu waxee waxu professionnalisme la wax mooy làmb tollootul fa nga xamante ni ku mu neex nga jël image bi yóbbu jaay te aussi suñ ko jàngatee ba ci biir c'est vrai parce que man. su ma nee je suis pour le changement damay ànd ak Gaston ci li mu wax perbekaay Bécaye aussi duñ ko bañal li mu wax ndax moom li mu xam la wax muy teranga ak dox lu rafet ak def lu rafet bañ na ko ba interview am dafa ne du ma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw Gaston aussi moom li mu wax c'est clair maa moom sama yëf ku mu neex ku mu naqari maa moom sama yëf maa moom pepp maa moom pepp pepp yaa ngi dégg euh, c'est tout à fait normal moom moo génne xaalisam su doon tey par exemple 2STV dafa ñëw génne xaalis bu bari jox ko ne ko làmb ji jënd naa ko dans ce cas tey euh, Gaston du génn naan moom maa moom pep maa moom pep mais li mu def pay-per-view ñi nekk di wax day yàq làmb yaa ngi dégg moo toll foofu parce que làmb moo amatul moyen yaa ngi te li may faral di wax rek taal bu taw a boor bu ne nañ koy jafale pay-per-view fi mu toll nii day dimbali promoteurs yi si pertement yi ñu doon am ñu di ko ñu ñu ñu ñu ko da di ko dabu ci ci PPV bi. Ah, mais PPV bi ñu bari nee nañ ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ay Kousanaar ay dëkk yoo xamante ne vraiment amul amuñu yenn moyens ci ku ku courant nga bëgg ko kilo connexion muy seetaan lamb ci PPV nee nañ ñu bari nee nañ loolu moo tax ñu ñu ñu jàpp ni bokk na ci lu yàq làmb. waa léegi ku ku ku courant yaa ngi dégg laa daan seetaan du télé. Hmm. télé lu koy doxal. a ah, pexe gi ñu doon def di seetaan télé war nañoo mën a def pexe boobu ba jënd paas non nañu waxante dëgg da ngay gis tey ñu jógee ba Gambie. waaw boo génnee ci dëkk bi rek connexion bi day xawoon. bi biir dëkk bi sax day naqari. biir dëkk bi sax day naqari waxuma la soo génnee dëkk bi mais c'est-à-dire il faut ngeen comprendre contexte bi mu tombel da ngay xam ne làmb dafa nekk ci crise promoteurs yi ils sont obligés wut tey ay partenaire liggéey ci pay per view pour am ci moo ngi mel na tey da ngay gis gars yi ñuy def ay jeux concours. Mm-hmm. ay jeux concours mënoon nañ ne ah jeux concours yi ñuy def naan tirage bi nangam wala nangam wala nangam naka la ñuy ñi dëkk ci kosaanaar duñ ci bokk. Mm-hmm. qu'on se dise la vérité àdduna mm-hmm. mooy évoluer àdduna nag suy évoluer nit ñi dañuy ànd ak moom dox dem. bu njëkk làmb tolloon na fa nga xamante ni dañuy ñëw teg ko ci télé yi ñëpp seetaan alhamdulilahi rabbil alamin looloo ñu gënal ñun. mais dem nañ ba nag loolu mënta ne promoteur bi mooy génne xaalisam tëgg ñun liñ ko mën a dimbalee mooy ñëw dagg billet wala jënd connexion yaa ngi dégg wala jënd paas seetaan ko su fekkee ne nag wax dëgg neex yàlla loolu dem na ba munut dem man làmb ji déglu naa ko déglu naa ko RFM waaw wala déet nañ ko RFM a ah, ñu muñ rek déglu rajo. jar na waxante bu ñaaw en tant que kilifa. ah loolu xam nga ñoom ñaar la. parce que tey ñaari ñaari kuy yuy mbëkkante man du ma dox seen diggante papa Gaston sama papala la papa Bekaay sama papa la ma fa nga xamante ni waxuma ci làmb mais ci àdduna fu ma leen di ndax ay kilifa ne ñoom ñaar ñëpp mot dañ ma way jur lu ma leen wax tooñ leen li ma mën daal mooy ku ci nekk ci ñoom ñaar sa vision nga wax père Bekaay jàpp na ni 2S ak intérêt waa 2S nekkoon na ci bi làmb ji jeexee ñu teg ko Gaston jàpp na ni intérêt am newul foofu intérêt moo ngi ci moom site bi mu moom teg ko ba pare te wax wax dëgg neex yàlla neexut a wax mais wax na dëgg nag. Bécaye fi mu waxee mooy intérêt moom moo ngi ci làmb ji bi mu jeexee 2S mën koo teg nit ñi mën ko seetaan ndax dafa am ñuy suivre 2S di am ñuy suivre ba di am ñuy suivre seen émission ñoom Gaston aussi fi mu waxee. mooy balaa keneen di ko teg moom mu teg ko parce que moom itam moo génne xaalisam moo tëgg làmbam donc il faut que nit ñi aussi tey comprendre ne développement tout le temps day impliquer nit ki def génne dara ci poche am def ci. yaa ngi may dégg tey jii ma jox la exemple da ngay gis bon duma jël sax kii wu jàkka mais damay jël par exemple école bu yàqu ci benn benn dëkk. Hmm. nit ñi ñëwuñu defar ko état ñëwul defar ko. mais waa dëkk ba cotiser defar ko d'accord nga ci waaw wala déet kon donc nañ comprendre aussi ne ñun paas bi ñuy jënd wala connexion bi ñuy jënd mooy suñu participation tey ci développement làmb parce que su fekkoon ne man ba ma taxawee ne état dafa war a woo làmb jox ko budget subventionné ko mu mën a génn ci crise bi mu nekk parce que Covid bi tey soo xoolee euh, dëkk bi amoon na ay problème dañoo génn ñi joxe fii ceeb joxe direction bi lii joxe fii joxe fii pour nit ñi mën a dund. làmb foofu la toll te loolu du lu Matar Ba di réglé du lu président euh, kii nu mu tudd euh, Bira Sène di réglé loolu lu Macky Sall président Macky Sall war a réglé la. léegi nag nit ñi ñoo leen bàyyi ba fii octobre su dee ñoom nanguwu ñu jël seen courage à deux mais parce que làmb dafa bëri naxante. te tollootuñu foofu mm-hmm. tollootuñu fu ñuy naxante si làmm mm-hmm. dañoo war a taxaw wax dëgg neex yàlla wone ni làmm ñi si nekk ay nit nañ kom ñeneen yeneen yeneen sport yi mm-hmm. làmm ñaata yoon la jël fii ay médaille est que nit ñi mës nañoo taxaw xeexal làmb pour président recevoir leen làmb tey ñaata ñaata sénégalais la la bégal est que tey da nga mës a gis waa làmb booloo doon benn taxaw wone ni ñi kat ñun dañoo bokk tey ci ñi nga xamante ni waa dëkk bi nañ dañoo war a taxaw ndegam nag tey artistes yi ak ñeneen ak ñeneen ñoo booloo mais làmb jot na mu booloo doon benn. mais mbër yi booloo yi booloo wuñu. Ah, président les lutteurs du Sénégal. non Gris ñi mu àndal la. Ah. mais ñeneen ñi ñu ñu booy bi sant Konaté. ay ñoom mobile waaw. yaa ngi ñoom ñoom itam am nañ seen groupe kon booloowuñu. ñoom ñëpp yaakaar naa intérêt waaw seen intérêt la ñuy dox. Hmm. mbër yi ñoom seen intérêt. Hmm. loolu la ñuy dox de seen ñoom seen intérêt la ñuy dox. ah ñoom li ñuy xeex pour ñoom la. kon seen intérêt la mais est-ce que tey président écurie yi ñoom am nañ kuréel. Hmm. ñoo ngi xeex pour seen i écurie intérêt ñan la. ñoom seen intérêt. manager yi. ñoom booloo nañu di xeex li ñuy xeex pour intérêt kan la kon làmb booloogul kon d'accord nga ci man waaw jeex na waaw. ñu gis Balla gay de def sorti fan yee génn wax que ni moom euh, yeneen contrat yi mu am du koy négocier pay per view bu amee day gagné cinquante promoteur bi gagné cinquante mbër mu ñu fay mu bëre loolu taxawaay boobu wala loolu bokk na ci lu yokk làmb. ah loolu moom moo xam li biir contrat bi lu mu ci waxanteeg promoteur bi. mais su fekkee ne dafa xës ba xaatim bind yaa ngi dégg ne moom kay kon balaa muy commencer loolu na commencer pour supporter am yi ñëw ku ci dagg bii rek moom mu am si pourcentage hmm. ah déet su dee dafa bëgg kay ku ko seetaan moom mu am si pourcentage na commencer ku dagg bii ci biir stade bi mu am si pourcentage moom sama xarit la wax dëgg neex yàlla nit ku baax la te xam naa ni inspiré wu na xalaat na xalaat ay pexe mais pexe boobu moom doxul na ko teg si suuf ba si kanam. boobu doxul su ko bëggee kay na def ko production mook promoteur bi nañ booloo. mu tëgg seen làmb waaw. ñu am lu ñu am séddoo. waaw mais ñu fay la pour nga bëree ba pare nga bëgg a lijjanti ku seetaan fay la loolu mënul ne de. <laughs> trop. dina <laughs> ci la ñoo waaw mais parce que fi mu toll nii déggoo li sawar bu tas la <laughs> ku nekk wut yoon booy booy lijjantee sa bopp maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa vraiment ci sa disponibilité di la jaajafal bu baax a baax. waaw ah, mais di la nuyu di la jaajëfal yow itam ah. di la jaajëfal di wax ne euh, kontaan naa ci waxtaan bi di nuyu seen waa site bi waa wasaare vraiment yaakaar naa mosu ñu am interview lu ci bëri événement yu mënoon def la ngeen ñëw di leen wax ne leen man maa ngi fi pour ñëpp maa ngi fi surtout pour lamb yaakaar naa ni seen CNG bi mujj du ma ne nekkoon naa ki ci gën a fës waaye bokkoon naa si ñi si gën a fës mhm. ndax li ma si ñeme woon jël ci engagement def ko am fu ma ko jëlee am fu ma ko yóbbu yaa ngi dégg. Mhm. bi loolu jàllee nga soog a commencé gis gars yi def ay point de presse si làmb commencé di woo sit yëpp ñuy ñëw léegi kon ko loolu jàll na may naa leen ko ba ci ministre bi sax parce que man damaa génn tey une semaine après mu dajale micro yëpp moom itam génn di ko nuyoo passage di ko féliciter si affaire Lions yi mhm. di ko wax ne nag loolu victoire football la ak Sénégal. yaa ngi dégg victoire làmb nag comme li ma ko waxoon rek duma ci négocier duma ko ci neexal du ma ko ci ñaan audience te li ma koy wax dina ko dégg su ko neexee dina ko dégg su ko neexut nit ñi ko jege dinañ ko dégg ñëw nettali ko ko waaw parce que man heure bu ma waxee rek lima may dina toq ci noppam muy moom muy njiitu réew mi te comme li may wax rek dinaa négocier lu ne saf làmb duma ma ci négocier parce que tolul foofu góom la alcool la ñuy jël faj ko te nag ñoom suñu jugut wax. may naa leen deux ans ya nga xamante ni kenn déggul ma dugg seeni affaire maa ngi woon sama roq di dem di dagg billet di seetaan amut benn promoteur bu ma sa mën a wax fii ne jox naa Keba billet mu ñëw seetaan si maay ñëw ak samay nit jënd billet dugg seetaan kon donc am naa droit wax ci làmb te incha allahu am na lu ñuy la waaj ñun ak waa Fatick suñu génnee koor gi écrit yu bëri yi nga xamante ne ay écurie Fatick la ñu ak région de Fatick ak écurie séeréer yi ñoo ngi waaj a booloo doon benn mhm. incha allah loolu su ñu jotee date bi dañ ci communiquer ak yow su jógee ci loolu nag suñu gis-gis si làmb bële dañ ko nëbboon ay les grandes lignes rek lañ doon wax mhm. mais bii nag bëgg nañ ko détailler point par point suñ koy def nag defuñu ko pour jël CNG bi non mhm. CNG comme li ma la wax rek ñoom demaguñu fédération demaguñu vote dañuy xool ñoom ki la neex ñu tànn loolu choix wu état la mais ñun itam suñu devoir ak suñuy droit permettre nañu ñu dajale moom làmb ne leen ñun nii nañ gisee te soobee yàlla ñu ngi koy waaj mu nekk bés bu mag a mag ba nga xamante ni acteuru làmb waxuma la yu Dakar mais yu Sénégal les quatorze régions incha allah dinañ fa daje pour bañ nag gars yi teel koo yàq donc xam nga sénégalais moom. lu mu dégg rek commencé léegi nga xëy suba teel gis commencé gis gars yi commencé naan dañuy def la même chose du ñu communiquer comme bi mais ñoo ngi siy liggéey ñoo ngi ciy def tournée bëj bi moom a xawoon a téye mais comme quarante 40 jours yi léegi mu jàll suñu paree ba def tournée ba dajeek ñi ñu war a dajal ba jàpp fan la ba dajale waa làmb yëpp mën nañoo dépasser 3000 mille ba cinq mille personnes yàlla rek a xam su ñëwee ñëpp toog ñu jël ko def ko direct may ko amateur yi. jël site yëpp ak ñiy def pp ak ñëpp def ko direct pour ñu nekk bitim réew télévision yi ak journaux yi nga xamante ni tey nit ñi ñoo ngi leen di lire fii ba Kaffrine ba Kousanaar ba Kédougou ñu woo leen li ñu xalaat ci làmb dinañ ko wax après nag yëkkati ko jébbal leen ko su leen neexee ñu def su leen neexee buñ def mais l'essentiel daal mooy man Kéba sama position démb ak barki dem moo doon taxawal di xeex ak làmb bi gars yi dawee ñoom ñëpp rangé wu moslem ñoom ñëpp ne nuut noppi déggatoo kenn ku ci wax mel nu man nga fa déggul te nag liberté boobu maa ba doon tiim sañ wax lii metti ci làmb te lu ma wax kenn du ko dindi ci kàttanu yàlla ak yonent bi ñoo ci ciy waajaat leneen incha allahu di ñaan yàlla senegal ak waa làmb yëpp xaar ko ñaanal ñu yàlla musal ñu seeni i pexe ñoom pexe nit yu bon yi musal ñu si pexe ñiy gàllankoor làmb ak ñi ñu bëgg a gàllankoor ba ñu àgg seeg jàmm jërëjëf. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la Kéba wax mu nekk lépp nekk loo xamante ne njariñu làmb la vraiment ñu koy jaajëfal bu baax ci xel mu sell mi wax mu dal bi bu ànd ak yar bi ak teggin bi mbokk yi di leen jaajëfal bu baax encore une fois di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jër ngeen jëf.